bokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñu fas yéene ñëw tuuti nag ci sama carrière ma am lu ma ci exposé man Moustapha Guèye laa tudd dëkk Touba sama cosaan nag nekk Saloum dëkk bu ñuy wax kër sëriñ Madiang Guèye à côté de Guinguinéo distance trois kilomètres ma juddoo ci commune Guinguinéo bay naa am na it yeneen métier yoo xam ne jot naa ci jaar lu mel ne menuisier def naa ko door a ñëw nag soobu ci immigré immigré naa jaar naa ci pays yu bari jaar naa Afrique Côte d'Ivoire ci année 1991 ci mois de avril balaa jóge Sénégal dem Côte d'Ivoire 1991 bi ma fa nekkee avril mais juin juillet août la 11 août. Euh, tombeek suuru dimanche laa fa jógee jël Air Afrique wàcc Sénégal changé air dem Las Palmas bi ma ñëwee Las Palmas foofa trois jours laa fa def ndax lundi laa fa def mardi mercredi laa fa jóge jël avion wàcc dëkk bu ñuy wax Valencia transit laa fa def bi ma ñëwee Valencia ma wàcc fa laa jële biis pour dem Barcelone Barcelone ba ma demee 91 laa fa def ca fin ba ba mu jeex fekkoon ñu tolloon ci maye ay papier bañ tolloon ci cat la fa mu war a jeexe ci octobre ba la jeex ma demaat Valencia gi nga xam ne fi laa jaaroon déposé fa yàlla dogal ci jamono joojee ñu dem bu mujj kayit yi commencé am ay jafe-jafe ñu commencé def ay recours ñu defaat ay recours finalement ñu téye ma Barcelone arité ma fa gannaaw ba ma fa defee deux cent et demi arrêté ma téye ma trois jours quatre jours cinq jours. interdit ma réew ma pour ma génn ne ma nag duutoo am droit feeg juróomi at ngay bolbeeraat di duggaat biir Espagne bañ ma libaree nag ne ma nag feeg quarante-huit na nga génn territoire de Barcelone territoire Espagne ma ñëw Valencia bi ma ñëwee ma def fa deux mois jàpp trois mois ca dobi ba janvier ba laa fa jóge dem dëkk bu nuy wax San Sébastien muy Pays Basque yi foofu ba ma demee deux jours trois jours laa fa def après ñu jàllale ma frontière ma fay dal di ñëw ci réewum France bi ma ñëwee maa ngi wàcc dëkk bu ñuy wax Marseille doo bi quatre-vingt euh, quatorze ca janvier ba laa fa ñëw bi ma ñëwee am naa fa quelque jafe-jafe ndax jamono joojee autorité française yi seen contrôle dafa sévère te ku ne jàpp dañ lay yóbbu Sénégal ma nekk fa suñ borom di ma suturaal ba yàlla dogal ma nekk fa 94 ca dóbi ba ba vingt 95 ba dóbi 96 ca janvier ba muy 200 ferme laa fa jóge nag ñëw Itali gii bi ma ñëwee maa ngi wàcc ci gaaru Milan ñi nga xam ne ñooy sama mbokki isbu tarxe yi ñoom ñoo ma jël si ca gaar ba ay côté 22 heures yóbbu ma ci dëkk bu ñuy wax Pagassano mi ngi ci Bergamo boo ma demee ñu dalal ma ma fanaan ba ma xëyee ñu yóbbu ma Brescia ca frère ya nga xam ne ñoom laa fa am. ma nekk fa ba yàlla dogal ñuy maye kayit ma am kayit liggéey naa fa yit lu toll ci six mois après laa fa jóge ñibbi ci senegal ci dobi 97 nga xam ne def naa fa lu toll ci juróom-benn at door a ñibbi Sénégal man ba ma dellu siyaate it Italie laa wàccat def naa ci biir itali nag dëkk yu bari def naa fi dëkk bu ne wax Vicenza après Brescia liggéey naa fa ci consilia yi liggéey naa fa 98 99 2000 ba un laa fa jóge ñëwaat fi nga xam ne mooy Milan bi ma ñëwee Milan it def naa fa temps bu néew walla weer yu néew doon liggéey ci affaire déménagement yi muy liggéey yi nga xam ne dañuy changer ay bagages di ko wàccee lu mel ne bureau ci liggéey yu mel noonu laa nekkoon liggéey naa ci it ci confection muy fi ñuy ñawee waaye man ci stock ya laa nekkoon fii ñuy defaree jiin yéeg fii ñuy defaree stock yi pour war ko yóbbu liggéey naa ci ci dëkk bu ñuy wax ci Milan tram moo la fa daan yóbbu. ba ma fa jógee it dem naa dëkk bu ñuy wax Torino ci dëkk bu nuy wax Bra moom it liggéey naa fa lu toll ci 4 mois après nag laa fa jógewaat dem île de Canarias muy Tenerife def naa fa 2 mois après ma ñëw île de Baleares Baleares xawma nu ñu koy waxee waxeeti sax Baleares Baleares muy Palma dama yor ko def naa fa 300. après nag ma ñëwaat itali léegi continuer fi laa nekk waaye mën naa ne région yëpp dem naa fa def na région Lombardia région Veneto région Piemonte région Toscana région Lazio région Umbria ak Sicilia Sardinia dëkk yooyu yëpp région yooyu yëpp dem naa fi ak Liguria dem naa ci dëkk yu bari nag yoo xamante ni ci yaakaar naa ne néewaa na dëkk yi ci Sénégal yi ku ko def noonu yi ma def bu dee ci réew yi tamit waxoon naa leen ne nekkoon naa Espagne dem naa France nekkoon naa fa Italie laa nekk dem naa Germanie Allemagne dëkk bu ne wax Bremen ak Cologne ak Düsseldorf dem naa Hollande Amsterdam dem naa Belgique dem naa it ci waaw yooyu dëkk yëpp yàlla dogal na jaar naa fa traversé naa fa ngir rek yokk sama xam-xam xam réalité yi dox ci réew mi ngir ma mën a xam fu may teg sama tànk kon xam naa am naa expérience ci réew mi léegi nag toll nañ ci jafe-jafe moom lañ ko tuddee ndax li waral jafe-jafe yi mooy dañoo indaalewul xam-xam ci réew mi nit nag bu fekkee doole rek la ñëwee ci réew mi di ko fi liggéeyee bu doole ja jeexee rek fa la réewam di yem loolu moo am waaye képp ku fi indaale xam-xam nag yaakaar naa ne réew mi des na ci yow ba tey waaye nit nag dafa war a am expérience tuuti waaye expérience boo xam ne yow weesuwu góoloo lenn lu dul tabax kër rek yem ci takki jabar dugal ci biir yor sa oto di dawal di jël sa vacance boo xam ne dina toll ci 4 mois 5 mois nga dem tëdd ko biir Sénégal rien doo def dara loolu dafa yënuwul maanaa ci investir boo xam ne si mën nga ko def ci biir réew ma fii boo fi nekkee da nga war a trouver solution ci jéem a xam dara muy jàng au moins parce que ñoom ki jàng lañ soxla ñi fi jàng ñu ngi ciy génn waaye boo jàngul it ba pare nag say at bari nga yàgg ci réew mi moom doo ci mën a génn. kon daal noo ngi leen di sant bu baax lii ab test la rek bu ñuy def ngir fas yéene dugg ci benn émission boo xam ne dañ koo jëmale ci wàllu diaspora bi noo ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm eh, di leen jéggalu nag jërë ngeen jëf